kii naan ko ay xar yi de xar yoo xamante ni seen i bakkanay siit rek nga ni da ngay vacciné booba léegi ñëw ah xanaa kay boo nee da ngay vacciné yóbbu eh, ay douze xari jàmbur nga woo ko waaye woowoo ko di xaar mu lay woo ah li ma allo waa jaata déet déet déet jaata wuyu ma waaw lu leen jot dañuy sëkkat ak bakkan di sotti danoo corona wala ah da nga leen a quarantaine pour les mais nii ma fi dama leen a quarantaine ñoom fi ne quatre laa fi yor dama leen a ber yeneen yi ma dénk leen kii waaye dimbali ma yow tamit ah waaw wax nga dëgg wax nga dëgg bi laa leen di diwee mi ngi nii ma yore waaw. waaw incha allah wa andi ko nag parce que commande yi ñi ma commandé xam nga fi ni nii ñëpp a ngi may message Instagram ñëpp a ngi may message yi ma wax fu xari yi toll. nga vente à gën moo gën ngay dajaloo xar yi mun bu xar mu am mun na koo jox meneen bi mu doon koo contact ala barsa la corona bi di demee kon. salaamaaleykum tak tak ji waaw waaw waaw. waaw yow léegi. waaw. so alhamdulilah. damaa nekkoon ci sensibiliser xar yi. Mm. masque yi laa demoon jëndi marché. boole ko gel septique bi diwul foo ci génnee sa léegi. damaa am xar yu ma commandé yuñ ma commandé waa waa waa kii waa waa waa sàkkal waa sàkkal dañ ma commandé ay xar. ma war koo yóbbu léegi xar yii fi des. Mhm. dama leen a quarante li ci des ma yóbbu leen ñu ñuy defal leen vaccination. ndax sëñ Talla Seck borom cane ba. Mhm. dafa am xar yu ma joxoon man Mexique ak yii beneen bi xaru Thaïlande la wan mu jur Ougandais bi mu juree bu Ougandais bi euh, ma boole koog beneen xaru Toulousien bi mu jur xaru Toulousien moom laa jox sëñ Talla Seck. Mhm. Assane Diop. moom laa mixé kii be xar mi eh, kii la irlandais la xar mi fi ne day njool xar mi fi ne bu nekkee bàyyi naa ko fi ba jëmmi tabaski gi di ñëw ba ba boo boo àndee moom ñu doo ko jëlal oto. pare waaw xar yi dañoo am nu melokaan de. yaa ngi ci xar. waaw kon xam nga ni tabaski ñëw na. mu ñëw ne man sax jëndalaguma saa bopp damay bàyyi ba yii jot ma dem ci coggal. man mii di wax ak yow jëndaguma xar ah. waaw yàgg naa laa wax ni xaalis bi nga may fay ma yóbbu ko pour location gàll bi. waaw ma yóbbu village jox ko ay rak. waaw fi laa jënd xar fi laa jënd ay yeneen machine say. waaw waaw waaw. ba yàlla def na nag gis naa fi maal bu baax. waaw maal bi commande la. moom démb ba mu laa tàggee Instagram. Hmm. moom léegi yow li nga ma yoreel bu ñu ko estimé bari na. ah. naa ne mënoo ma koo fay ci weer bi. waaw waaw xanaa faaw hmm. tabaski jéeg yooyu daal. léegi dañ koy dugal ci xar mi. xar man xar mu góor bii bii. ndax euh, bii waaw bii laay jël tabaskee ko incha allah. ah léegi yaa ngi jël ay risque de bii dama koo tàggee borom dañu naa koo tàggee jar na de. sama yoon nekku ci yaa war a ta yaa ma war a jox xaalis ma jënd xar. waaw da ngay xaar nag xam nga ko euh, opération tabaski eh. ren gànnaar xar ya fay jóge boori mos dali fa dafa am yu ko kar diggante mus fa jëm Jidda xar yooyu ñëw ñu ndax nganale màkk yi waroon a am ak corona bi fu mu toll loolu moo waral ñu xar yu Musdalifa yi léegi Jidda boo fa wàccee dafa am benn dëkk bu tudd Urumay si foofu fa la yeneen xar yi di jógee léegi loolu moo tax xar wàccul normalement yaa ngi dégg waaw man ay xaru Jidda ak xaru Musdalifa xaw ma ngay wax xar yooyu ñorul ma xam nga ban xar moo ñor waaw bii laay tabaskee un point un trait ju mën a sa avis yoreel nga ma xaalis bii la ñuy jël dugal ko ci waaw léegi pour ñu bañ suba dinaa gaare oto ñëw yàpp ci xanaa. waaw ñu bañ a am problème jëlal yaay yaay ji nga tabaskee ko. man maa lay tabaskee xar mu jigéen ma. xanaa yow amoo rek bañ lay jox yi dañ ko commandé de. borom jas xam nga kan moo. Eh, déglu ma bii laay tabaskee un point un train. neel waaw. point maa dem. yow yaa war a jar yow yaa yaayam nangul neel maa jar bul jéem a organiser yëpp sa stratégie la yow bi ngay bi ngay ëmb li ma sonn ci yow quatre vaccin ngay andi benn c'est pas nar bu ma xool léegi nag c'est qu'on va faire ma bëgg a perte bii ma tagee Instagram jox ko booy fii ba tabaski daal doo leen def carton sax duma ko dagga dinaa mel ni Aly Ngouille Ndiaye tëj naa yoon yi mesures yi barrières yi lay tax waaye raw Aly Ngouille Ndiaye eh frère allez siyaare baay grand gis nga àdduna amul solo àdduna lépp teranga te yàlla dogal na lépp bi ñëpp lu ne ku ngi ci ñëpp bokk loo ci am na la waaye dama lay tegal ni la gis nga course boo am bu amul ndaare noo ca dawee baax na waaye fexeel ba bu jël ndaare sama nit nga. yow loo bokkoon daal seen. moo bokk ma moom dara waaye li may wax da di dëgg ci man. yow mi waaw ndax boo fàttalikoo l'autre jour ñëw nga fi ñu toog ak ñoom Papa Thias nga tegal booy lu tar indil leen coow indil leen na waaye ba ngay wax booy gisuñu loolu de li nga leen di gëtal non ñoom gisuñu loolu xamul la nañu gis dañoo gis ku jantal car macha am doole. nekk ci li mu war a ne am fulla am fayda jigéen ñi loolu lañ ko amal noonu la. mu xooluñ ci yow non dama lay wax pare ko yàlla bu ma pare léegi. maa ngi ñëw waaw maa ngi ñëw ku baax dafa am ay booy booy bi nga xamante ba nga koy menacé boobu maanaam ndeysaan gis na la bu yàgg. xam nga man lépp lu may wax rek. dama ciy bëgg a jiital seede. déglu ma man wan mën a ñàkk fay na muy taxaw naan ma danga may incarner ay show wala genre man su ma nobee jigéen. yow yaa ma koy may may sol samay daal ma dem ba ci ñoom internet. et pourtant wuyu ma que ça soit la première et la dernière fois ma romb la nga naan ma daan booy bu dégg tif ma ni kenn xam bu la neexee. un point un trait jeex na ok non da nga may dund ku waay waay waay ji bu xamal la ma koy waajal ay waay ji bu ku baax damaa bëgg te yàlla rek tax jox ma cër comme ni ma la joxee cër xam nga loolu woon na ma woonu ma ñàkk fayda bu nga xamante ni. da ngay génn ma lay intercepté di la wax ay waxi ñàkk fayda werante ko xante ko tubay du dëgg dama lay wan boo d'accordee man maa lay woo moo hmm. ko woowee man maa lay woo ñu tasante fi werante ko xante ko tubay da ngay xool rek yaay choisir la waaj a waxoon yaay choisir gis nga beneen a ngi muy ñaata ñaar ñetteel baa ngi yaay choisir yow daal wax ma bi nga appoo ma dugal coup de fil carte gi féete boo ah, ah ku baax <laughs> ne nii yàlla dugal na ni weret da koo ko tey katu bëri kii kan la kii du ay kii moo dagg ci ma ah dangaa doof ok amul plaignant ah nag naa tegal leen hmm. ba tey amaguma ci yow cent pour cent gëw mën cent pour cent mais nag naa ko may cent cent parce que man instant bii dama ko nëbb booy bëri ñu ngi toog sama ginnaaw comprendre tigi si parce que booy bi xool naa ko mais xeesaay bi moo ci xaw a neex góor la góor la quoi ndax tey mënut a ma xam nga kañ nga mu dugalee appel. ba woo nga ni dara. léegi nag leen laa lay wax. waaw bu ñu xoolal mu am dara bu ñàkk fay parce que man yow doxuma ci. man doxuma ci. noonu la demee. jeex mais teewul nag. location bi da ngeen koy tax a rafet ba nga cee ndamu boo ñàkkee ñu seetaan la. neuf ah doom day waaye ngeen événement bi ñëw na man de ku parewul ba heure bi yaa xam moom pare naa bu yàgg. mu toll nii noonu ay xaar xëy naa nga man damaa ñeme sañse dama bëgg a sàjj ak sama bu baax sama sobu longueur 32 la sama frontal takk. waaye balaa 42 de sama jésmeel bu am jom xale yi may tendance dañoo bari. baax may tendance ku ne dangay toog. waaye li ma jaaxal rek mooy xale góor koo ci woo ma fay téléphone am. corona bi corona bi. man de yow de man kii bi xale góor lañ ci mujjee woon di raadu ci occasion man ak ñoom dama leen may naa ndax dama leen di toog ba mu papa lii kaa am na. waaw mais am na namb ba indil nga ma nouvelle ba neex rek. waaw xam xam nga la man. yow dang may nax nga ni ma laaj mooy kër gi waaw moom kum choisir ci xale yi hee kooku ba maag moom foofu day wàcc ci kon nag man sama tabaski validé daal man li tax ma bëgg la ñàkk laa xam daal wóorul. ah yow ñoo far da ngay sa lekk bandi. d'accord kontaan naa jox ko sama numéro rek ñu déggoo. merci beaucoup kontaan naa. bisous kaa. bu ma leen a rek. nga woon bare lii corona bi ak fi réew mi toll nii mbaraan yi la waaye instant yi am naa benn ba pare li jënteetu ma dal nga ci de amatoo dara nga jël nag ay rek wala ci day gën a sakkan rek. moom moom kër gi kër gi pare laa dund na jaay de laa dund ñëw seer. ba leen moom rek ba cote ko kooku maa ko mën a yor. oui ma na baanu wena ko baam ma mayee naa man. maa la ko wax. gaa yi xam ni koo koo koo koo di nii rek ñu bëgg laa faraj faraj yi njaayum xar mi ren xam nga dina différencier ak ni kat daral bi ñëpp di rëbëx rëbëx buñ fa engagé waxuma la corona mais xar mu ngay rey boo ko reyee nag saaf bi contact yi démarré ngay lafar lafari man yoruma xar yoo xam ni dangay nubbu nubbu ji xaaral ma vocal kii Instagram nii waa doo tolloy gis nga gis nga li gis nga li abaay ah, cent la boobu laadum cent pire la prix bi laa wax boy bi mu mu tàgge ko noonu <laughs> lii ndeke tubaab ñoo liggéeyul ci whatsapp ak réseaux sociaux yi ci uti góor ba salaam salaam rek lay woowee wax da laa neexul. <laughs> daa neex na ma booy booy. jeex waaye ni nga def man sa dara ji wax naa la a may daane mosuma la ko wax. pour naa góobee wu ko sax xam nga bëgg nii déjà maa ngi xam. Ah, nooy <laughs> moom a ci ne a ah, <laughs> man daal nu mel bëgg naa. ah ne nu mel bëgg naa. bëgg nga waaw. jaay koo doon xool Ada xanaa. Aba man musuma xool Aba. ëpp naa de. maa mos a gis nag may seet si Aba duy sama tuñ. mooy <laughs> na de. maa bëgg paa bu dégg tamit. waaw waaw waaw man de dégg naa ñu naan. mii seet si. kat yam. eh li may ñëw di seet si sama bët bii ci yow daa ko teg. kan man mii. monsieur yaa may daane. déedéet ma ko de. daay bis ni ko tey xam ko. man nee li may daane la ci ci yow moo bari. sa ñuulaay bii. <laughs> sa garaam bu lappax. man daal dama laa bëgg daal. waaw kay. billaay dama dugg waaw li lox sax. waaw yow ma jaral li. non UCR de. ah da nga UCR. mais dikkal nag yéen saa yi. maa man kay. wuyu ma waaw ah. ma ci nàkk may ma ma toog ah. ma uuf la wax la ñaari baat eggal sama kër. Eh, toogal de. <laughs> xam naa dina la neex. neex na moom. kon yow man mosoo xool mbay ma de nga doon xool. non mooy doyee man fii yow yaa ko kay toog ni ma wax la. léegi attanoo ma de attanoo ma. ah dama laa bëgg moo tax doo gis ci man kaay mu. ah il a di ko dàq daa am. ak ci réew mi tool bi tëj machine bi. yow xaaral lépp ko si naan sax. maa ngi ne. na de. maa ci la de. yaa ngi seen ma. waaw leeral ma ko eggale ndax lu neex ba baax. waaw waaw baaxul dañ koy dagg. waaw tamit. xam nga koy eggale. Ah. Mm. waaw. daa metti. ma bu mel ni man bëgg naa damaa ngoonee. nga ñëw ndànk sama kër. aywa ñu raat suñu yëpp. xam nga yow. boo joo nag laay ma ma jëng ko dafa xam ni àdduna paa bu uufu laa mosul gis. Eh, maa maa ko dekkal nii <laughs> man maa ko dekkal wuyu ma. Ah. garab bi nag bu woonee boo ñëw. bu toog ma nga toog. yow bokk na ci li may daaneel. kon mën nga naa jóg ah? Ah. ni nga taxawee lan la. non non c'est bon. dama laa affaire <laughs> xale yooyu ñoo ma daal man du foo de affaire xale ya damaa jugal jugal si ma man daa fay jaaroon def ne nii bu dara jug na ñëpp tëdd ba ngoon à ce soir incha allah oui ama moom ga am jugal bi mu ngoon gi tàkkusaan laa dul xaar